alhamdulillahi mu lil ijay wa zamali man kaana bi adarin aw kaana bi safari bis yi jàll bu defee Sëñ ci boppam ñu gën a fàttali xam ay wéy juróom di jigéen di soxna Jaara Laay Buso maam Anta Sali di waay juróom góor mi ngi gane àdduna ci Mbàkke Bawol sëriñ bi nekk koo xam ne fi mbokk ñëpp dëppoo leen ay sërif la ci yaay ak ci baay di jëmm joo xam ne lu baax da koo teel a la moom rek waaye way juróom bu jigéen di soxna jaaratullahi bu sa def na ci liggéey boo xam ne bu ràññeeku la ci teel di ko xamal ñi nga xam ne dañoo jiit woon ci ñu baax toujours mu di leen ko tudd ci kanamam di xamal sëñ bi ne ko ñoon ñooy roy waay sëriñ bi loolu ci bi ci jógee ba wàllu jàng nekk ci mbooleem loo xam ne waris na ko jàng ci téere xam-xam mu jàng waaye ndax loolu rek dina day déedéet sëriñ bii moom daf doon jàng waaye daf caa boole ak sàmm kon moo tax kuñ ko tëkkaale wal ci wàllu xam-xam ci jamonoy jàngam sax fam lay jiitoo mooy ci wàllu sàmm ndax dafa teel a sàmm lu lënt mu ci lenn lu dagan rek moom moo sa nekk lu mu bëgg teel a sàmm lool ci sàmm mboolem ay cëram def suñ borom digle lépp lu mu tere kenn di ko seen loola ci la nekk ci diiru ci tàmbali liggéeyam bi mu demee ba ci wàllu dem ba war a mën a xamle te waaye jërëm bu góor di maamoon te sëñ di jàngale sëñ bi ci boppam nekk ci wetam di ko ci jàppale ci njàngale mi waaye li lay war a xamal ni sëriñ bi am na lu suñ borom dëxañ ci moom dem na ba àgg ci ñëpp dañuy sawar mu jàngal leen kon loolu wane ne kii day yàgg-yàgg mbiram dina mas a fisi mu nekk ci wetu waajuru mas feeñal lenn di maamaratu sali àgg na ci sax bu gisaa xam na xëy na lii xëy na leerul ci moom du ko wax ne mukk lii day du yow sama waajur ndax waajur dafa foor lenn rek lan la may muy waajur mu ne la def ko nga bañ koo def mooy lu naqari suñ boroom waaye lu leen lu dul lu la sa waaju digal na koy def lépp lum la tere da koy bàyyi waaye moom bu ci gisaa gis loo xam ne jaaxal na ko day bàyyi ba maal tosali dem ci beneen jataay mu bind ab kayit wax ca lam tey wax su ko defee loola maamad xam ne lii kat wax dëgg yàlla nii la war a demee mu sa feeñal dara diirub li fi Mamadou Anta Sali nekk mos feeñal dara waaye bi nga xamee ne yàlla dogal na Mamadou Anta Sali jóge ñu denk ci tënk ba ñu waxtaan ñu war a jaale di jaale ñu wax ni sëñ bi jàll si ci digg bi ci digg mbooloo mi sëñ daal dox tuuti ay jéego yu yem daal di toog ñu ne ko jàll si mu ne fii baax ñu ne ko Lat Joor mii kat ak ñi ñoo ñëwoon di la jaale si sa waajur wi ginnaaw lool ndax jaale sunna la waaye bu loolu waaye dañoo bëggan taxawaay bi nga xam ne te sat taxawoon na ko di jëflante ñun nga di ko def su ko defee ñun danaan la yore sa lépp bu doon suñ jamono ji dañ koy wax ne ko milliardaire lañ lay def waaye nag dañuy bëgg a jox jaxasoo yow sëñ Tuubaa ne leen maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm di jaale gi ngeen may jaale sama waajur ndax waajur dafa for ci doom maa ngi leen ci sant di leen ci gërëm am maa nag lii ngeen wax ma bàyyi fii ma jublu ànd ak yéen muy bunti buur yi loolu man du lu may mën a man te la taalif xasidam ga muy xaalu li yarkan li abwaabi salaatini taxus jawaïs tuxni kula ma xiini fa xultu xasbiya rabbi waktafaytu bihi wala suraadi gayra alilmi wa diini mu ne li ma wax ne ma ñëw jaxasoo yéen ngeen di ma dimbali di ma defal ay taranga loola man day soxluwuma ko man daal maa ngi leen di xamal ne bisub tey jii lu dul xam-xam di diine loola soxluwuma ko jaaxle mu nekk ñaari kuréel benn kuréel bi ne ab dofa milliardaire man la ne bu dul seen jamono ji man la koo def ci bisab tey jii doo manqué te lenn loo am loo soxla mu faju ganaa ay ay xam-xam ak i diine yi dof la am beneen kuréel bu wax ne kuréel seen waaja waajaa ngi nii loola daal di tasaaroo kon loola danañ ci mën a jàngate ni ndekete alal baax na waaye ndekete li am solo mooy lu mu ci mën a doon nekk ci njub taxaw fi nga war a taxaw loola mooy lépp te yaakaar naa bisab keroog bu nangu woon lañ ko wax jël xaalis boobee ànd ak buur yi kon yaakaar naa tey jii jàmb jii nekk tey jii duñ ko duñ ko am ndax na ko boppam nee nañu aju ci man suñu aju ci man la daxalul naara la dellu ko ma sawar kon kooku mooy sëñ bi ci loolu la nekk nekk ci ba yàlla dogal bi mu Mbakke Bari wala Mbakke Kajoor bi muy Mbakke Kajoor ci la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feeñ ne ko rabbi bi bil himmati wala bi dars lii nga xam ne moom nga ànde woon ak ñii nga àndal muy mag ñi nga xam ne ñoom dañ koo bëggoon lu mu leen digal ñu def leen lu mu leen tere ñu bàyyi ko sëñ Tuubaa ne leen seen lépp yonent bi wa sallam ne yaral sa ñii nga àndal ci itte ak jeex ci suñ boroom te bañetee yem rek ci lii nga nekk muy jàngal nit rek ab leçon bu dem lool buñ ci yemee cër ban waraam dëgg-dëgg duñ ko am sëñ bi daal leen dajale ñoom ñëpp ne leen kat mbir mu bees xew am na yonent bi sallallahu alayhi wa ñëw na fii léegi nee na nii ma àndeen ak yéen njàng leen kese naa ko soppi naa leen yar ci itte ak alta mooy joxe sa bopp mel ni am néew lu ma leen du ngeen am lu ngeen di bëgg du ngeen di am lu ngeen di tànn fu ma leen foofu ngeen di aw loolu daal la ma yënt bi ne naa leen ci yar léegi nag maa ngi leen di déglu ñii ne ànd nañ ci lii nga wax mooy ànd ak yow ci lii la yënt bi sallallahu alayhi wa wax am ci ñoo xam ne ma tamit doomu aadama jot na leen ñu ne ñoom kat wax dëgg ak yàlla affaire am njàngiwul moo leen fi andi leen andi woon waaye lii daal moom wax dëgg yàlla lu bees la ñu xamuñu ko waaye li ñuy wax dimbalante du mën a ñàkk am ci ñun biñ demee ba nar a dem am ñu leen woo ne leen ah tee ngeen a toog ndax kom kii mu àndandoo moom te lii la andi doonte lu bees tee ngeen a toog ñun ñu ànd moom liggéey bi ñooña yàlla suñ borom dimbali leen. ñu toog ànd ak sëñ Tuba mu tàmbali liggéey bi ca la waxee rabbi bi an usarrih bi annani malasu wa mabsa fa man araada al xayra fi kiltay daarayni falyalus bi ne sax boroom digal na ma ne maay làqatukaay bi maay wéeruwaay bi képp ku bëgg teraangaay àdduna ak alaxira ñëw làqu si kon sëñ bi euh, dafa àgg na foo xam ne lanu yonent bi la ko wax na ko fasda bi ma tumar wa alil jahilin àgg na ci foofu la xam le ne man maay làq waay bi maay wéer maay wéer bi ci waay bëgg ñëwal wéeru ci man nu kon di ko am moo tax mu ne wallahu yansaru nii wal xalqu tatbaxu nii fi l barri wal baxri saa nafan bila darar yàlla suñ boroom mooma dimbali waaye nu yàlla dimbalee mooy dafa sax ci li yàlla bëgg in tansurullah yansurkum yàlla moom ku ko dimbali mu dimbali la lim yàlla nag weesuwul lu suñ boroom digle nga nekk ci lu mu tere nga bàyyi ko loola ci la nekk mu nekkoon man de na maa ngi leen xamal ne yéen bi ndee fi man may koo xam ne njariñ laa lu àndut ak lor nekk ñoom ci loolu di leen yar waaye ñoom it bëgg Sëñ Tuubaa lool ñoom mag ñooñu ak gànna ci da daan gis ñoo xam ne daanan euh, dox ci siñi sàkket am na ci ñoo xam ne daanan bay ba ab ñulu bu tàng ñu naan te du leen wàññi dara waaye loolu war na noo jàngal ne ndax loolu sëñ Tuubaa mii daan def loolu ndax da koo mën ca jamono ya waaye léegi mën a du loolu nam ko ma ne woon tey la ko gën a man ko nun loo war a xoolaat bopp ndax sëñ Tuubaa moom démbam junee tey ji gàtteel na ko kon loolu war nañoo xam ne euh, suñu Abdu Xaadir yal na yàlla yokk leeram mas na koo wax nee na kudd gi mi ngi fi ku def la mag ña defanit sëñ bi def la lam defal mag ña kon lu lu ci manqué rek ci ñun la waaye sëñ bi moom toujours jekk na sëñ Abdou Lahad Mbacké tey wax na ko nee na moom day def ko ni saxaaba yi moo jafe muy saxaaba yi ni defal ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye day képp koo xam ne def nga ko ni saxaaba yi defal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na dana la def defal la saxaaba la yonent bi defalaan euh, saxaaba yi kon loolu nan xam ne ku nu war a xoolaat suñ bopp xam ne sëñ bi moom jekk na ci fànn bu ci nekk ci loolu la nekk nekk ci waaye loolu weesuwul lim ci jublu mooy rek liggéeyal yonent bi ko wax loolu mooy mi ko wax ne ko rabbi ashaabaki bil himmati wala turabbi dars mu liggéeyal ndax liggéey boobu ngun liggéeyal nekkul kon ne liggéey bu bees sëñ Tuubaa liggéey bi mu doon liggéeyal tamit am na ñeneen ñu daan liggéeyal yonent bi waaye am na ñoo xam ne bi ñu koy liggéeyal dañ ko doon liggéeyal waaye ban amee lan doon wut danoo daal di dem ñi ñii di ko liggéeyal yàgg fa lool amuñu ko ñu yokkat waaye moom nee na yooyu man dabuma daani ixdaami nabi ixdaami nabi xubbu saatihi nee na man day liggéeyal gi may liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du lenn loo xam ne loolu laa ci wut wala mu bëgg ko ci man daal dama koy liggéeyal ngir ne dama ko war a liggéeyal loolu tax mu ne dammi wa ahli wa awlaadil fidaa lahu abdan xadiman lahu muskaani bi sanada mu ne na sama deret sama lépp ak sama njaboot tey la naa ko jotoo naa ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man awma leen sama lépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxaat ne lahu dahri niyaati wa ilmi wa xidmati wa ruuxi wa jismaani na man sama dund sama yéene sama xam-xam lépp jox naa ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam deseelu ma ko lenn waaye nag bëgguma ci moom lenn waaye mu yonent fay ko moo tax mu ne xaddamani llahu ala quddaam bil mustafa al musabbitil aqdaam nee na yàlla suñ borom bi nga xam ne mooy jiitale moo ñi ko doon liggéey yonent bi nee na bari waaye yeneen yàlla suñ borom ci boppam nee na ku ma sa liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na yàlla moo ma ne yow yaay ki nga xam ne yaa nekk ca kanam kenn ñëw ci sa kanam yaa jiitu ñëpp moo tax ma ne man zanna annahu yakuna abada yurdihi billazi ka xidmati bada dafay sa sannahu bi anaya alxadim bi ma wana an mislihi kullu xadim nee na képp ku yaakaar ne li may defal yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na nga yaakaar ne man nga ko nee na kooku bàyyi leen ku ma dem ak jortoom nee na yonent bi sallallahu defal naa ko loo xam ne kenn mosu ko ko defal waaye bul jàpp ne moom xiit sëñ bi dafa yem ci yonent bi sëñ bi muy Abdul Xaadir Jilaan muy Cheikh Ahmad Tidiane saa sali ñoon ñëpp da leen a liggéeyal ba làq seen gërëm moo tax mu ne man lam yakun anna yardi fal karim radi anni radan lay sa yaram nee na ku ma gërëmul yaay caag ah yàlla suñu borom mi nga xam ne mooy gërëmee man gërëm na ma kon léeg-léegi nga dégg ñoo xam ne léeg-léeg ñu naqarlu lu wax siñ bi wala ñu def ko mu leen di naqari ñu yaakaar ne loolu dafay suufeel darajaay siñ bi waaye siñ bi bis ba nga yaakaar ne ca lañ ko mën a suufeel bis boobee ca lay gën a mën a yëkkati ko darajati taalu walaysa tan xafit wa man naxa minal wara xafdin xafit nee na sama daraja day yëkkati ko wa ba te képp koo xam ne jiim na maa suufeel nee na yow yaay suufee kon siñ bi li am lijjanti comme ni ñu ko waxee naa diw de day lijjanti propagande sëñ Tuubaa jéggi na foofu li mu am da ko li ñu naan li koy wax ci diw da koo deewoo sëñ li mu am daf koo deewoo ba am ko lu kenn daf koo liggéey ndax cër la boo xam ne dañ koo teg mi ngi nii ku ko la ca da la la ca fekk ñëpp xam na ko moom mu songin ko songin boo xam ne bi ñëwee da koo rafetal ba kim doon liggéeyal na ko lam ko wax ci jamono njaarim na ko mboolem li ñu la doon def loo def def nga ko wàcc nga waaye ndax lim doon def noonu ba yàlla dogal mu am ci ngërëmam dafa sedd déedéet nee na man li ma am muy ngërëm nee na damaa sonn kon bu kenn jàpp ne war ngaa mën a am ci Sëñ Tuubaa dara te soññoon loolu bu fàttali ko sëñ Mouhamed Fadal nekk ci njawal Sëñ Tuubaa waxal na ko keroog bi bi ñu sëñ bi ñëpp toog la sëñ Fall wax mooy man de. jaay naa sama njuréel jënde ko taalibe sëñ Tuubaa ne leen fii de li fi ne mayewul saraxewul day jaay ndax bu doon loolu la tey jii nun ñii duñ jëriñ ci sëñ Tuubaa te gëm nañ ne nun ñii fi nekk Lambaay di Bawal suñ jëriñoo ci sëñ Tuubaa Cheikh Ababacar Cargaan la te santu Mbàkke kon lu ko may loolu daf koo deewoo loolu nu ñëpp na ci bàyyi xel sëñ bi moom amul parparloo sëñ bi moom dafa maan ni yàlla suñ borom maandoo noonu la maandoo moom li mu xam mooy defal li nga war a def man du ma nax kenn nee na moom du nax kenn ñi ma dafa am ak pay ngërëm loolu daf koo de daf liggéey nabbahtukum maan ala kaddin bada lii qabla an araare dan ma abada nee lii ngeen gis tey ji ci man muy ngërëm ba ñetti fu gox wut si ma kenn ku ne ñëw naan naan sëñ bi sëñ bi nee bu leen yaakaar ne mukk man damaa tëddin di nelaw sëñ bi mboolem di doon li man mii ak keneen ni la melan daan di màtt mu metti ci yow noonu lan doon màtte sëñ Tuubaa metti ci moom wax na ko néegam jaar ak néeg bii nga xam ne moo nekk Dakar rek ko sëñ Xaadim xam ci waxtaan yi passé néeg boobu rek keroog ko fi dugalee bi mu tegee tànkam rab bi dafa bënn benn tànk bën benn fu mu fa teg ay rab lañ lañ ci organisé waaye terewul keroog fi na nafa ñaar raka raka bu njëkk baqar la ci jàng ak am ñaareel bi mu jàng ci Ali kon kooku li mu am def ko liggéey kon loolu mën nañ cee jàng ne yëf daal mi ngi noonu ñun ñëpp kenn ku ne nga gën a laxas xam ne cër yi amul sëñ bi amul xëj seen sëñ bi moom da ngay boo defee li nga war def moom mu def ba ci ngërëm loolu waxuma la moom sëñ bi muy wuti ngërëm waaye daa mujj mu aw fu mu aw rek dal ci ngërëmal yàlla suñu borom fu ma aw rek ngërëm li dal ci sama kaw ilay xaadama ilay farra xisbil ilahi man adaamul birra nee na li nga xam ne ñu baax ñi dañoo dawoon di ko wutsi di ko wuti nee na ñoo loola ñu dafa ñëw ci man toog na ma jébbal naa la sama bopp kon kooku mooy Sëñ Tuubaa loola nag bi nga xamee ne am na ñu gis ne nit ñaa ngi koy topp man di ko jox seeni alal di yëg ci garab di daanu ñii di naan ay baraadu yu tàng ñii di xuuti ay xali safara loolu nag bi mu amee buur yi bañ ko ci tënk rek am ci xam ne bokk na ci li waral génnam gi bi nga xamee ne am na benn tampo bu sambalaw bi di defarlu bi mu koy defarlu am damay bañ a tudd tur wi ñu bari den ko xam kooku daal di ñëw di xool tampon yi ne ana ko moom bii ñu ne ko diw ñu ne ko mu ne ana ko moom bi tampon ñu ne ko diw mu ne ana moom bi ñu ne ko sambala bi moo daal di fexe jëmm jooju ba jël tampon ba daal di koy def ci benn kayit tampon ko ci daal di ci bind benn lettre ne ko yow borom Ndar na nga xam ne man sëñ Tuuba maag sambalo boo jëkkatu ñu jëkk dal foo mën a nekk dinañ dal sa kaw ah ñu ne kon kii de lépp luñ ko daan tuumaal leer na tey jii ñu jox ko ñu mën a jàng olof ñu jàng ko ne kii daal mbooleem buñ ko daan tuumaal nag moo ko def waxuma loolu waaye leesal yi daan yónnee ci sëñ Tuubaa sax di di ko woolu wax ndar ci nekk ndar ki dekk nag di ko woolu leesal yi dañ ko daan sànni ñooñu bu ñëwee ci borom ndar dañ koy wax ne ko sëñ bi nee na ñëwuma tey ñëwuma la loolu dañ koy wax ba ci leesal yi ci mujj ba jot ci maam Cerno daal di ci jot andi ko ne ko xamal ko lii da ay tuuma rek la waaye moom foo ko foo ko wooyee dina la wuy fekk lettre boobu sax wax nañ ne ki ñu ko doon jàngaloo def te bu bu nee guy ga mën a daqaar ga danaan sëñ bi nee na ñëwuma tey ñëwuma la te sëñ bi loolu maam Cerno yàlla may xel la mu ne lii daal kii daal ni muy ni muy ni muy traduire lii man doyuma naa dem ci biir dëkk bi di mu andi keneen mu traduire ko sëñ bi mu ne ko sëñ bi nee na man lettre bi ma cay jotu ko waaye su ma jotoon dina woon dinaa ko nii leen mu ne kon am na ñu ma yebal ñuy dem dinaa leen téléphone ñu taxaw. waaye waxtu wi tisbaar bu fekkee na ñëwul su boobaa fu fu mën a nekk gis na ko jëli bi maam Cerno yi di ñëw ci yoon wi ci gàttal rek wax nañ ne ab pël lañ ma baal nee na moom nañ ko booleel pour mu war ko woon pël bi dox tuuti rek daal ikkam man daal xamatuma yoon maam Cerno day sànn ku yàlla may xam ko mu biddaloo muy dox di dox ba jox too fajar bi mu bëgg wax rek si na ko ko Cerno bul wax ba nga taxawee ca dàtt mbeer ba xaronda ba doon ndox ci sa tànk gi loolu maa ngi koy yëg cerno bu ma yàggal dem gii may dem mënta ñàkk sa mbubb mi tilim na te mënta ñàkk saa ko fóot te it yaakaar yi bari na fii ne nit ñi ñu ma jàppi am sàq moo xam ne damaa fees dell ba képp xeefati jàpp ne dangaa mën a ñëw ñëw ci man dund ci man te man dara néew fi ca faw ma génn dem di géelu Yonent bi sallallahu alayhi kon sa dem gi ñaari sabab la sababu saahir la ak sababu baatin sababu saahir si mooy tubaab bi ñoo ko woolu waaye sababu baatin mooy si yàlla suñu borom ci boppam moo bëgg am cër bu nga ko jox te cër boobu bu génn liggéey liggéey liggéey dem ci tukki bi du ko la sëñ bi daal dem génn daal dem euh, wuyu ji ba mu dem Dakar bis boobu nag di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru la boo xam ne ko waxoon day mel ni ñu ko boolee leen saa su ne suba la rek si bi moom day wàcc ne suba day dina metti waaye ci jamono njaarim bi ñu ne ko mboolem li nga doon def loo def nga ko wàcc nga lii des mooy ak pay nga sant yàlla suñ borom ci loolu sëñ bi ci boppam wax na ne ci màggal gi mu njëkk a def dafa am ku ko joxoon addiya benn bëy aw bëy waaye xam nga sëñ bi moom dafa lu baax lu ne day bëgg la mu dem ci séeréer yi pour ñu weccee ko ci ñoom xëy na ñoom di doon bëgg aw bëy ñu defal ko ko am am kuy màggal gi ci loolu nag am bis boo xam ne tabaski dafa ñëw génnul ñi di ko xaar di xaar génnul ba tabaski ba noonu la jàll ba bis bii di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ca daal di defar ñaari gàtt ndax sëñ bi wax nañ ne bu daan même tabaski sax ñaari gàtt la daan defaral waaye moom sax daawul rendi waaye kuy rendi rek day am ñun teg noonu daal defar lu gàtt booba bi mu ko defaree sax ñu bari naa ne ah sëñ bi da day fay faat maanaam xam naa tabaski gi ko rawan moom lay dabaatal boo ji siiw am ci ñooñ sax dañuy wër di wax naan sëñ tabaski bi tabaskiwaat bii nga xam ne moom la sëñ bi digle day man bu déwénee kenn du ma ci man wax bi di dox di dox baaga ci sëñ Tuubaa mu ne leen dafa am lu ma dégg ñu naan tabaskiwaat mu ne bu kenn waxati tabaskiwaat man fayuma faat lii may def cant la di màggal loolu muy bis bi mu fi jóge woon muy keroog bi ko jë muy départ Mbàkke Baar bi dem di fukki fan ak juróom-ñetti weeru safar ma war a màggal gi mu xam ne ne bis bii mooy sama bis bu ñëwatee képp koo xam ne sama mbég sa mbég la na nga ma ci sant yàlla suñu borom ne bu kenn uma wërsëg li dale ci ginaar ba ci giléem kon loola dana ci mën a dégg yii xew fan yi nga dégg sëñ bas wax ko ci turu sëñ bi tudd baatu safar yi kon loolu dañuy euh, fàttali ne sëñ bi keroog lu mu wax waxul ne lii weeru safar fépp wala premier safar muy safar dafa wax ne bis bii fukki fan ak juróom-ñett mooy sama bis bu ñëwetee na ngeen ma ko màggalal màggal nag dafa am nit Sëñ Saliou Mbacke waxoon Sëñ Saliou Mbacke noonu dëgg dëgg màggal gi mooy bernde daal layal ko nag ndax nee na alxuraan di xasida yi ña ña nga ko doon jàng waaye bernde yi wax dëgg yàlla nan ko nan nan nii ñu koy defee nii euh, ci bis bi daaw ñu ko defee moo tax mu ne dëgg dëgg màggal gi mooy bernde nga xam ne yomal xiyaam nañ waxoon ci kii passé amul bis waaye bisu màggal bu ñëwee ñëpp dina xam ne bis baa ngi nii mu nekk koo xam ne kon màggal mu nekk koo xam ne tukkeem boobu lu ne am na ko suñ boroom defal na ko ci leen jaalte sayri fawqa hajjin wa jihaad nee na sama tukki bi suñ boroom defal na ma ci lu kawe aj màgg wa xajjatan li mit bu dex fi natidaa wa xajjatan ala maqaami kon nekk na loo xamante ne bii soo soo gàllankooree ba amoo loo demee màkk nga xam ne am ga gàllankoor yéene ko ci suñ boroom moom ma ne ko ci waxuñu nag bul dem màkk waaye boo ko yéene woon amoo ko amoo boo ko defee lii ne ko ci rek ndax moom sëñ bi moom tëlewul dara sëñ bi moom mooy koo xam ne tëlewul dara kon sëñ bi mooy koo xam ne tëlewul dara kon yaakaar naa mi ngi noonu màggale gi ñëpp ñu waajal ko lu ci waay man mu def ko bul ni rek fa may dem dama fay dal ñu may benn ma ñibbisi waaye léegi amul génn kër gooy dem yóbbaale am nag wala nga yóbbaale ay ginaar boroom kër ga ne bu fi dugg kon yëf moom léegi mi ngi noonu ñu ñaan yàlla suñu borom ñu dem ci jàmm ñëw ak lépp lu ci sëriñ bi digle ñu am